Ndakaaru audience spéciale la ñu anam amal maanaam bés boobule moom loolu dong. Mhm. la ñu fay euh, àtte ndax mu ngi contesté ba tey li ñu ko rajee ci liste électorale yi ginnaaw bu ñu ko condamné ci mbir boobu doxoon ci digganteem ak euh, aji Sarr. Mhm. Euh, ñu gis ne daal Cour suprême. Euh, saisir woon nañu ko agent juge de l'État mu mu casse jugement bi nga xam ni moom moo amoon foofu foofule euh, ca tribunal bu Ziguinchor ñu ngi fàttali itam yeneen chef d'inculpation yi nga xam ne tegoon nañu ko ci kaw euh, Ousmane Sonko requête de en procédure accélérée bu rabat d'arrêt bi nga xam ne def nañu ko te Cour suprême daal di koy rejeté ñu gis ne daal yooyu yëpp gis nañu yoon ni mu ciy taxawee fi mu ne nag ñu ngi dundewaat yaakaar ñoom ñi ànd ak Ousmane Sonko koy euh, layal lu douze ñu wax euh, dinañu xam moom euh, ndax dañu koy rajo ba léegi ci liste électorale yi wala ndax dañu koy dañuy confirmer mhm. décision bi nga xam ne jëloon nañu ko mhm. Abra bon man am naa ci yaakaar ah mhm. am naa ci yaakaar na Ousmane Sonko dina dina bokk ci liste électorale yi fenn rek laa ko teg en ah, fait c'est-à-dire comme loolu laa laaj nag foo ko teg daa xam li ma la laaj <laughs> comme que recours day à chaque fois. Hmm. comprendre nga mën nañ ñàkk kese ñëw na day bokk. Hmm. après ñuy defar recours. waaw te élection yi li ci des bëreetul. Hmm. naam parrainage yi moom léegi mu jeex. man foofu laa ko teg. da nga ragal moom wër-wër bien sûr. ndax boobaak léegi maa ngi koy wax sànq avant ñi ñu ñu tàmbali. fan la tàmbalee. ba ñëw ba Ziguinchor ñoo ñu joxe seen verdict. agent judiciaire de l'état ak ñi ci topp def recours. Hmm. ñu yóbbu ko CEDEAO waa hmm. CEDEAO ñoom au lieu que sax ñu wax ci radiation bi. dañ koy ñoom waxuñu woon ci radiation hmm. ni ñu dissoudre parti Pastef ca lañ àddu. ñu doon xaar cour suprême cour suprême moom ñëw caché. nañ xaar nag ba xam ñi moom euh, yoon lañ fi nekkal wala. je sais pas. de toutes les façons yi nga xam ne ñoom ñooy laaj Ousmane Sonko. ñoom dañ dem seen liggéey. ndax yoon itam dina def liggéeyam. ou ndax nag liñ koy toppee amuñ ci cest à mhm. amuñu lenn loo xam ni mën nañu wax ne lii lañ toppee Ousmane Sonko dem nañ ba am ci firnde. Mhm. ndax problème problème mu Adji Sarr gis nga fa mujje ak yeneen yi nga xam ne moom moo ci topp ñu dem ba ci teg leneen loo xam ne amul ñu ngi koy door di dégg ci ci wàllu justice par exemple ay corruption de la jeunesse. Mhm. wala ay contumace ay kenn xamul. dafay xaw a compliqué. bon la du soreetul nañ toog xaar. c'est pas mardi prochain la. le 12 euh, le 12 fan. normalement mardi wala mercredi. mardi soit le la mardi naa mooy samedi. mar mardi la hmm. noo gisee mbir mi. waaw bu fekkee dañoo tënku ci yoon. dañu hmm. ko réintégré waat liste électorale yi. Hmm. ni ko sabat si defee woon. mooy fi nga fi ma d'accord ak yow ne am nga ci yaakaar. ñàkk ci yaakaar bi mooy gisuma woon. agent judiciaire de l'État mi représenté État bu Sénégal di defaat appel ginnaaw bi nga xamee ne si wax nañu dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi mm-hmm. man dama yaakaar bu ñu ko bàyyiwoon mu bokk mm-hmm. du yëf yi du egsiwaat sax ci tribunal bu Dakar mm-hmm. te Ziguinchor lay yem ñoom ñu continuer leneen ñu bañal ko parrainage am bañal ko leneen ku la bañal loolu man fi yaakaar naa lu la nangul di la réintégré waat ci liste électorale yi mais nag buñ ko tegee ci àtte ci yoon te tam euh, foog naa ne ku ci nekk bëgg nga bokk sa histoire bu Sénégal juge yi gis nañu euh, li ñu doon amal fan yi ci mhm. jiite union de magistrats du Sénégal. dégg nga mhm. kàddu yi nga xam ne wax ko ñu bañ a dugg ci yenn mbir yi. Mhm. donc loolu cax la te foog naa ñoom dégg nañu li nga xam ne war nañ ko parce que politique ak justice dafa nekk ñaari mbir yu différent bien que lu nekk dafay tàbbi ci loxo justice bu fekkee euh, justice dugal na ci loxoom. mais nag ñoom yàlla may na leen tey ñu mën a bokk ci histoire bu Sénégal. mooy xam nga lan atte dëgg bi askan wi di xaar ci ñoom bu ko defulee rek seen way dina ñaaw. seen way yi na ñaaw mais est-ce que am na si njort bu bu bu bu rafet ngoone waaw njort bu rafet mooy bu fekkee ne doxal nañu yoon ni ko Sabasi doxalee woon mm-hmm. parce que xam nga Sabasi la mu jàng mm-hmm. tey ñi di àtt fi ñoom ñoo bokk lu ñu jàng mm-hmm. kii di lire code pénal kii di lire code pénal wu Chine kii jàngee fee ñu jàngee ñoo bokk lu ñu parce que benn droit moo am peut-être que ne interprétation yi ni ñu koy interpréter parfois du demee noonu wala dañ koy interpréter pour xoolu neex nit wala pour waxee ko neneen. Mm-hmm. mais ñoom ñëpp ñoo bokk ñu jàng. fi la basé wu ba mën ne nañu intégré Ousmane Sonko. liste électorale yi. Mm-hmm. donc ñoom dañu mën a dem ci siège boobu. bu ñu ko mm-hmm. defulee nag ah sénégalais ñooy jugé. bu mu bañ a bu mu bañ a mm. mm. <laughs> euh, ñoom ba ñu demee yóbbu seen caution te te CDC. Mhm. xam nga dañuy dañuy dañuy introsé waat histoire à chaque fois. waaw tey bu fekkoon dañ leen a nangul loolu ñuy toog xaar le douze. comprendre boobaa sax yaakaar dina mën a am mais bañal nga leen de bokku ci li si yaa ngi toog di xaar ndax dina bokk ou pour le douze bi nii ah nañ toog xaar. le douze sax gis nga douze nag moo woon am alburax. moom laa lay woo ñu woon egg si fii egg si ñu naan ay yëf yi tribunal bu Dakar dina ko jugé waat ak. yóbbu nañ ko fële agence judiciaire de l'État interjeté na appel def nañu d'accord ci moo taxoon ñu yóbbu mais Ousmane Sonko jigéen si la dëkk. yow tey boo dëkkee Ouest fi am fi 6 mois yow buñ la fii lañ lay fekk si. tey yow man fi ma dëkk. Mhm. man fii lañ may fekk. Mhm. wala sama kër. Mhm. buñ may andi plainte fan lañ fan laa dëkk. su ma doon demandé maire tey maire Colobane Fass Gueule Tapée fa laay demandé parce que fa laa dëkk fa laa am kër. mais Ousmane Sonko dëkku jigéen soor. maire fan la. Ziguinchor waaw léegi bu koy bu koy atte bu ñu ko attee foofu. lan mooy tribunal bu Ziguinchor dafa incompétent pour juger mbiru Ousmane Sonko. te juge nag fii ak yi nekk fële ñoo bokk fi ñu jàng. waaye léegi est-ce que mënuñoo wax ne tribunal bu Dakar dafa incompétent ndax Ousmane Sonko dëkkul Dakar. <laughs> bien sûr mën nañu wax loolu. waaw léegi ju nee justice ak politique gis nga euh, euh, politique. Mhm. tant que yaa ngi koy rax ci justice. dafay tere dafa dafay tilimal seen der ñoom nag ñoom ñoo war a jël seen responsabilité mooy mhm. ñan mooy ñiy àtte mhm. nekkaluñ fi Macky Sall nekkaluñ fi Sonko nekkaluñ fi keneen ak kenn askan bi lañ fi nekkal seen ultime la ñuy jugé ci ay texte lañ koy teg ci ay loi lañ koy teg nañu xool texte yooyu ak leneen ak leneen bañ a xool bu dee dafa am lu leen di wax pour ñu def ko wala pour écarter kii wala pour radier ko définitivement ci liste électorale yi ñoom nag ñoom ñooy am seen way. ñoo am ñooy am seen way euh, bu ñu si jugee euh, ba léegi sax dafa mel ne dañuy jàll si nga tëddi. <laughs> Ah, foofu ci réew mi. benn politicien boo xamante dañuy nekk 3 ans. Hmm. di nekk say mbir di ci wax ah 2021. depuis ñu rajee ko ba léegi. ba ñuy ba ñuy ba ñuy wax ci Ousmane Sonko. ci jamono bi ñu toog di wax Ousmane Sonko. Hmm. ñi si judd woon. Hmm. boo moytu la ñuy dem jardin. te ba tey ñu toog fi ñu tolloon. foofu lañ toll bi ñu koy njëkk ak bi ñu koy njëkk a jëli Colobane c'était pas nekkul woon ban année du 2019. jëli wuñ ko Colobane de. non bi muy dem euh, section de recherche. waaw STM Mermoz dañ ko jàppee. pour yóbbu ko euh, section de recherche. bu Colobane waaw waaw boobu ba ma année la ko fàtte. da nekkoon ti biir fa nga dawee woon. non loolu jaaxal na non fàttali non non bokkul ak. tax moom koy fàttali non bi ñu gën si keneen la mars 2021. non bi xale bu jigéen di jooy jooy jooy Place de Louis mooy bi bi bi xale rek Ousmane Sonko xam nañ ko convoqué woon muy dem bi muy sol tout blanc bi noonu. loolu je pense que mars 2021 la. 2021 22 23 loxo ñu naan dañ ko mën a. waaw voilà 21 loolu seen Mermoz la woon. <laughs> waaw 21 ci dañ koy toppee trouble à l'ordre public. voilà foog naa bokkul ak bi muy génn si tunnel bi ñuy sànni kii bi. gàllankoor bi muy génn si tunnel yi loolu. waaw ah, moom mbay ñaa la waaw waaw mbiru maam mbay ñaa li nga xam ne lañ ko njëkk jàppee. Mm. man mën naa ci benn livre de. doo yow <laughs> kii su may nettali affaire bi affaire Ousmane Sow dama koy gis xam nga dama koy gis waaye alhamdulilah kii boobu nekkul woon sans limite mm. mais man ngoone ngoone day mel ne xoolal ko am match de football Ngoné training am Ngoné seet Ngoné baale sol training mais yow boo xamee ne à tout moment mën nga daanu mën nañ la bu maax mu am na lakki machine da ngay sol grand bu dem di ci ci yooyu doo sol sa jean sol sa casquette xam ne mm. à tout moment da mën na fa am non man moom jour bi ma la gën a gën a remarqué mooy jour bi ñuy bi kii euh, photographe euh, patriote bi ñu koy kii kii noonu bi ko bal bi di gaañ noonu si si loxo xaw ma ci tànk la ci tànk voilà xam nga gaañu ko wax li nga fekkee gaañu ko dañu dégg loolu ñëpp fekkee nañ ko dañu ko dañ ko tiire ci tànk mais gaañu ko de dama la ko langal nag sa wet rek laa taxaw taxaw nga fu baax boo xoolee yow man ak yow sans limite ak ngóoni wii ndax boobu ñoom daal dama lay xëcc la kaay góor daw taxawal ana war a xëcc <laughs> du fàtte dara. yow ba bëggee daw ma ne ko looy daw taxawal. kon ma ne ko c'est une longue histoire rek. Ah, waaw te moom nekk woon Saalum. moo tax ma ma respecté xam ne yàgg naa jëmbal ci tey ne la góor du taxaw leen. fii ngeen liggéey da ngeen di liggéey yéen dafa oh, nekkoon ay bés yoo xamante ni voilà ay ah, bés yooyu kañ wax dëgg yàlla bu ñu toogee ba di ko nettali xam naa bu ñu demee ba nekk ay mag ay maire mm-hmm. waxtaan suñu set moom mm-hmm. mën nañ cee mën nañ cee bind livre Ahmed dem ba jaaxle téye micro naan Ousseyn mi ngi jooy Ousseyn mi ngi jooy ndeysaan mi ngi jooy <laughs> ñu ne kuy nag euh, loolu yëpp nag expérience la yoo xam ne da koy dund même bu fekkee mais ay nerf itam dàq nañ fi Babacar waaw Babacar cameraman waaw dàq nañ ko fii ci corniche bi dàq nañ ko fi waaw nga yuuxu xaw ma Ahmed yuuxu ne ko sama kanam ñu ñu fel ko mu wadd boobu sama kanam la te mu yor carte presse am mais xam nga daa dëgër boobu waxul dara gars fausseté ko mu daanu. waaw léegi lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy loolu. ak nit dof aussi bi ñu koy arrêté. sama kanam bu fekkoon police koo dàq ji wala gendarmerie sax nga ne waaw. mais ñi ko dàq ji bokkuñu. dañ ko jàpp gendarmerie da doon dox sax da dox gars yi ñëw jàpp ko jàppaale ñeneen mais ñu ko jàpp moom waxul quoi. Mm-hmm. le temps xamul wax gars yi daaneel ko kii ko bole ko xoo bëgg ko def seen affaire yooyu noonu man maa daw si ni kii journaliste ñoo ànd après si lañ ko si lañ ko si lañ ko bàyyi te jour boobu tam ngoon lu ñu naan si gaal lëkkat ma seen moom <laughs> bëri na quoi bés yu mel noonu moom gëj quoi vraiment et puis comme Ousmane Sonko tamit euh, wax dëgg na ak lu ñu si mënti am nag nañ ko nañ ko bàyyi mu bokk nag vraiment mm. euh, ndax démocratie moo siy gagné ah n'est-ce euh, ba léegi ci mbiru Ousmane Sonko tuuma bi ko ki nga xamante ni